yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fu ngeen mën nekk ci àddina ñu ngi leen di nuyoo fii ci jumaay Touba di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ci niñ ko baaxoo defee diir weeru koor yi ginnaaw bi nga xam ne fekk nañu waxtaan yu am solo yi nga xam moom la ñuy waxtaanee fii ci barab bi. tey jii nii euh, ñu ngi ciy feggoo ak kuréel bu am solo boo xamante ñoom itam seen taxawaay lépp mooy setal jumaa ji feggoo ci ak daaram xadamatul xidma tey jii nag waa daara bi woon leen fi ngir ñu fekk si waxtaan wi fekk si ndogu li am na jàngat yu ñu fi def to mel na ni ñooy bokk liggéey bi fii ci euh, jumaa ji ndax ñooy setal jumaa ji euh, muy kuréel bi nga xam mooy setal jumaa ci alxames bi mu am solo lool nga xam ne buñ ci noppee rek julli ajuma moo ciy tege barab bii nga xamante ni moo fi nekk buñ ko daawatu setal nga xam ne saa su ne waxtu li fi ñëw ci mbooloo booba dina xaw a am nu mel waaye ñoom ñu xar seen tànk tubay saa su waxtu ni ko jokkoo ci ak Muxaddamatul Xidma di ko rafetal noo xamante ni ku ko fekkee rek saxol na ci seet baax a baax sëñ Amid Mbacke mooy war a wax seen kàddu délégation bu am solo la euh, sëñ Amid ci turu sëñ Afid Bousso mi nga xam moo jiite daayira Muxaddamatul Xidma ñu leen di bu baax a baax di am mbégte kontaan baax dal leen fi leen tàttagal leen wax bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk yëpp ginnaaw bi nu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci sangu mi def sallallahu alayhi wa sallam di ndokkeel ak a sunu sëriñ Cheikh Mouhamadou Mountakha sunu borom subhaanahu wa taala yàggal ko te wéral ko te kàttanal ko te àggale ko ay yéeneem te ñu ànd ak moom waaye di ndokkeel bu baax waa Moukhaddamatoul Khidma ci njiitul imaam suñu afiya ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi yëpp di yëkkati ak kàddu nuyoo ak sant ak siyaar buy bàyyi ko ci suñu suñu kilifa gi sëriñ naa bu Bousso moom sëriñ Maram moom sëñ Massamba Kanni moom sëñ bu be mu ànd ak mboolem ñi nga xam ne ñooy waa daayira Ashabul Janati ci njiitul sëriñ Amdi Bousso Bilal ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi yëpp ñu ñëw di ndokkeel seeni bokk bopp yoo xam ne bokki deret lañ waaye bokki pas-pas lañ muy asxa muy muy daayira bi nga xam ne mooy Muxaddamatul Xidma ndax ak njabootu boppam rek ñoo ci nekk ñoo xam ne mooy moo moo leen njaboote ci pas-pas ak ci deret kon su ñëwaatee fii ngeen woo ko di ko ndokkeel ak di ko sant ak di ànd ak moom mbégte mi nga xam ne mooy mbégteem sunu borom subhaanahu wa taala li ñu digal ci jaamu ko waaye rawat na ci weeru tedd bi nga xam ne mooy saxru mubaarak ngeen di taxawee taxawaay bu am solo di eh, dundal Euh, ruuy jullit ñi ci xam-xam waaye di dundal seen i jëmm itam seenu yaram ci li nga xam ne mooy tax ñu mën a am kàttanu mën a jaamu yàlla kon loola boolem jullit yëpp leen ci ndokkeel ak di leen ci ñaanal waaye rawat na njabootu Seexul Xadim gi ñoom ñu ne xam nañ ne lii ngeen di liggéey ñoom lañ koy yéen ñoom ngeen koy defal ndax ñoo ko waron taxawee ñoo ko waroon def kon nag bu leen ci wuutoo di leen ko defal loola dañ ciy sant yàlla bu baax waaye di leen ci sant di leen ci ñaanal muy daayira bii nga xam ne mooy a Ashaabul Jannati te daayira bi yoo xam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko sosoon muy mi ngi sosoon ci 1976 di daayira boo xam ne dañoo taxawu euh, di liggéeyal Serigne tubaa di ko jaare ci jëmm ju tedd jooju soxna jaara mi nga xam ne mooy buntu juliti yëpp rawat na murit yëpp ndax lu ñu am ci Serigne Touba rek pàggu téefam moo tax daayira boobu nag ñoo àndandoo waxtu nekk di liggéeyal Serigne bi ci euh, mboolem xeeti liggéey yi nga moom la ñuy dàkkoo ngërëmu sëriñ bi ñu diw ci yëngatu moo taxit nag daayira boobu nga tudd wala mi nga tudd te ñu bokk ci ñiy seetal banqaas la ci biir daayira bu mag bii nga xam ne ñoo leen jiite kon nag euh, sëriñ bi seexu naa nee na sant na yàlla bu baax dool leen sant sëriñ Touba bu baax a baax waaye dool leen a sant yéen ñi nga xam ne yéen a Moukhaddamatoul Khidma ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom da cee nekkoon démb ak barki démb ànd ko ak yéen waaye ngeen wéraat ko ci biir ànd googu mu ànd ko ak yéen ak bokk gi mu ko bokk ak yéen di leen ndokkeel ñoom ñi nga xam ne ñooy assemblée janati te assemblée janati bu ñu ko waxee danañ wax sëñ bu soobe te ñoom ñoo ñoo meññi liggéey ñoom ñoo ñoom ñoo ñoo taw liggéey bii rek kon ñoom ñii daal yëg nañ ne liggéey bii ñuy liggéey di ko liggéeyal Serigne Touba ñoom lañ koy defal ndax ñoom ñoo war a jiitu ci liggéeyal Serigne Touba ñoo ci war a mujj kon ku ci nekk ci waaru di ci liggéey dañu xam ne ñoom ngay jàppale kon ñoom itam dañ lay ndokkeel dañ ne sant danañ ñaanal sunu borom subhanahu wa taala xam ne mooy kàttan ab jaam mu kàttanal ñu àggale ñu fu sunu fu sunu yéene fu suñu fu suñu jëf mënta àgg sunu yéene fu fu jëf àgg ci barke bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yaa xayra dayfin ataa bil bishri